Ansoumana Dione maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Ndeye Comba. Ansoumana Dione nga nekk njiitu ASAM association pour le suivi et l' assistance aux malades mentaux 10 bi ñu jagleel ko bës bu ñuy màggal wàllum santé mentale ci àdduna bi naka ngeen ko fas yéenee féete fii ci senegal waaw ren ci Sénégal man jàpp naa ne euh, amagul benn wàccaay boo xam ni amal nañ ko ci bëccëg bi nga xam ni moom lañ jagleel ñu amee feebaru xel ci àdduna bi ndaxte depuis may wax amul benn réer boo xam ni ministère de la santé def na ko ak ñi nga xam te ni ñooy yëngatu ci wàll bi. boo jëlee hôpital si kati bu Thiawlay nga jël hôpital Fann nga jël SNES nga jël journaliste yi nga jël sunu kuréel ji di Assane nga jël yeneen kuréel yoo xam te ni sama loxo waxoon na ca dugg euh, li ci mel ni OMS ak yeneen partenaires sociaux yi syndicats yi ñoom ñëpp kenn woow leen ci benn réunion kon tey ji man Ansoumana Dione jàpp naa ne altine Sénégal mënul màggal bëccëg boobu dañ koy war a tuxal bu ko defee ñu mën a xool naka lañ koy waajalee woo naa ministre man ni Xemes Ngom Ndiaye mun a ma naa ci directeur de la lutte contre la waaye kooku bi ma ko wooyee taxawaay bi ma woon mooy ñoom dañ nar a bàyyi division de la santé mentale xam ne docteur Tine moo ko jiite ñu dem def seen ay caaxaan ak seen ay tappale fële ci Thiès daaw noonu ñu ko defee woon daaw daaw jéeg nous avons fait at yi depuis Macky Sall ba mu nekkee gi ba léegi loolu lañ nekkee léegi nag comme Abadou Sall nekk ci ministre de la santé Marie Khemesse Ngom Ndiaye ñëw na ma xamal leen ni la woon wan na nañ teg mbiri ci yoon moo tax bi ma waxtaanee ak ministre bi ministre dafa woo docteur euh, Mamadou euh, Mamadou Moustapha Diop xamal ko ne ko waxtaanal ak Ansoumana Dione seet mbir mi nag lañ koy jaarale ci yoon pour que mu nekk journée boo xamante ni. dafay nekk journée bu mucc ayib boo xam ne ñëpp ci gis seen bopp journée bu jaar yoon ba démb ba tey jii maa ngi woo docteur euh, Mamadou euh, Moustapha Diop démb nee na ma li ma wax nii danaa ko jox ministre parce que ma ko ne ñaar la loolu ñuy waajal Thiès nañ ko dakkal seen toppale yooyu ñuy waajal Thiès seen cinéma yooyu ñuy waajal Thiès naka ngay defee daaw ab atelier Thiès ci turu santé mentale ren aussi ngeen ne da ngeen defar atelier boo xam ne ñun ña cay nekk kenn xamu leen yow rek yaa leen xam. ministre bi dafa teel wax nañ ko altine bu fekkente ne la ñu préparé Thiès amal nañ ko man Ansoumana Dione altine dinaa dem division des investigations criminelles déposé fa ab plainte parce que ñii ay raykatu nit lañ wax naa ko ci sama gémmañ ak nopp docteur Moustapha Diop parce que tey bu fekkente ne bëccëg bu mel nii dafa war a tax ñi nga xam ne nii ñooy ñi amee feebur xel seenu ay wayjur association yi nit ciy liggéey médecins yi euh, psychologues yi psychiatres yi anthropologues yi ñoom ñëpp ñu war a toog waxtaanee jafe-jafe bi ñu amee feebru xel naka la ñu def bay ñu ci ay saafara yow nga ne déedéet da ngay dem laqatu Cees kenn xamut loo fay def bu ko defee mbir mi kenn di ci xam dara tey jii ban taskati xibaar ban rajo ban télévision moo gis ñu fay ko pour mu publicité bëccëg bi nga xam te ni moo moom mooy moom lañ jagleel ñu amee feebru xel bu dee journée tuberculose bu dee bu dee journée sida bu dee journée diabète bu dee journée cancer gis la cay xew lépp fii nag dafa nekk ay mbir yoo xam te ni ay nit yoo xam te ni ñoo nekk di jalgati Abdoulaye Diouf Sarr directeur yi mu bàyyi ci ministère bi bu fekkente ne nii lañ nar a doxalee nañu xam ne danañ fekk Ansoumana Dione mu taxaw seen kanam parce que yéenay jàmmarloo ak ñoom ba ni Abdoulaye Diouf Sarr génne ci ministère bi ñoom yooyu lay directeur ñu jóge ci ministère waaye nag am nañ yaakaar ci Marie Khemesse Ngom wóolu nañu Marie Khemesse Ngom joxe ñu ndigal pour que ñu ñu ànd ñu doxal mbiri si yoon parce que ku gis nen ne ne nañu nii ku gis tàppale ne lii tàppale la division de la di contre la maladie ak gestion de la lutte contre la maladie ñoom ñëpp ay kat yu mag lañu Sénégalais yi lañ bëgg a continuer di réeral te loolu même tas ci xibaar yi war ñu ko nangu altine bii man réunion lay xaar waaye xaaruma bëccëg bu ñu màggal feebaru xel ndax te ba fii may wax nii hôpital ci kat bu Thiaroye clinique Moussa Diop bu Fann hôpital buñ ko fàttee am na pavillon France boo xam ne ni foofu la ñuy fajee ñu amee feebaru xel ak ñeneen acteurs yoo xam ne bëri nañu ñoom ñëpp ba kenn si ñoom koo xam ni woon nañ leen ci réunion pour ñu ànd man mii Ansoumana Dione man de ba nii ba ak yéen ni suma réunion bi suma këyit kon jàpp naa ne kon dara xewul parce que au Sénégal mënoo fi màggal bëccëg bu jagleel bu ñu jagleel mbirum feebaru xel te boole woo ci waa hôpital Thiaroye boolewoo ci hôpital Fann boolewoo ci ensemenement de nga xam ni moo yële kuréel bii toppatoo ñu am feebaru xel ba pare nekk nag conseiller ci action sociale ak ah fan même action sociale boobu noonu dañ ko war a boole ci mbir yi te kenn boole ko ci kon li nar a xew altine su fekkente ne seen caaxaan bii peñeer wëyal nañu jàpp ne danañu porter plainte contre docteur euh, Mamadou Moustapha Diop ba pare laaj ko mu tekki ndombal tànkam parce que wax naa ko ko au téléphone boo ba caaxaan bi ñu wéyal ko musiba dina dal ci ministère bi musiba dina dal ci sekoo yow bu nga xam ne ni yaa indi yaa sabab lii waaye nag comme Marie Khemesse nee na nañu teg mbiri si yoon jàpp naa ne danañ ko teg si yoon bu ñu ko tegulee si yoon nag ma jàpp ne lobby ñi nga xam te ne ñoo nekk ministère la santé te ministre bu ñëw ñu fexe laa liggéey lobby yooyu ba léegi ñu ci kon man Ansoumana Dione ñi nga xam ne nii mbir wér gi yaram jitteel na leen dañu war a jàkkaarloo ak yooyu leen lobbiñ tas ko bu ko defee askan bi mën a gis seen bopp ci wàllu en tout cas wér gi yaram. ma ne ce que ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye euh, situation wu ñu am feebaru xel fii ci Sénégal est am na amélioration. waaw euh, bu ñu waxalee yàlla bu ñu waxee rek te yàlla tax Sénégal la muy dund tey ci ñu amee feebaru xel ci réew mi seen coono fokk natt weesu na ko amul benn amélioration bu ci am en tout cas avant deux mille deux mille ba tey jii li si noonu rek moo fi nekk ñu amee feebu xel kenn faju leen kenn toppatoowu leen réew moo xam ne ni mbedd boo tourné gis amee feebru xel réew moo xam te ni ñi sii biir kër yi kenn leen ak ñoo amee feebru xel réew moo xamante ni ñi nga xam ne ni euh, ñoo ñoo am autisme ñu ñuy tuddee les euh, les déficients mentaux ñi nga xam ne ni ñoo am feebru xel ak yenn xeetu feebru xel ñoom ñëpp dañ leen bàyyi seen bopp et pourtant lépp a ngi fi pour ñu toppatoo leen lépp a ngi fi amul lenn loo xam te ni rek waroon na mën a sax ba ñu nekk ci situation bi nii dafa mel ni Sénégal ci boppam moo bañ ay doomam yi am feebar xel naka ngay toppatoo ñu am corona toppatoo ñu am tuberculose nga toppatoo ñu am diabète nga toppatoo ñëpp waa ñu am feebar xel ñoom nga baleen ci mbedd bi ñu am feebar xel nga bàyyi ñuy rey seen ay wajur ñii di rey seen ay doom ñii di rey seen ay yaay yaay yi di rey ay doom yooyu ay mbir yoo xam te ni mbirum feebaru xel la kon tey jii gis nga occasion moo ñëw le 10 octobre yëpp ñu war ko mën a changer kon naka lay ay nit mën a tooge am lii xalaat bu bon naan da ngay dem làqatu foo xam te ne kenn du la fa fekk nga lekk fa say lekk say xaalis lekk xaalisu ay bailleur lekk xaalisu ay partenaire fonds mondial yooyu yëpp dégg nañ bi ci biir pour loolu nañu toppatoo ñu amee feebar te loolu président Macky Sall moo ci war a jiitu moom moo des ginnaaw président Macky Sall bu demee bay bay bay bay toog ak ñu koy saagandey waaw mu bay ab ndaw boo xam te nii àdduna yëpp ñoo naw xam-xamam réew mi yëpp ñoo ñoo xam-xamam ci wàllu pas-pas toppatoo ñoom feebu xel parce que Ansoumana Dione bu ñu fàtte ne depuis deux mille muy ñaar fukki at ak ñaar tey jii ñu ngi ci mbirum feebul xel président Macky Sall ne kooku du ko déglu ban réew lañ jëm ñu am na feebul xel daal jàppal ne seen coono foo ko natt weesu na ko képp kuy taxaw nag naan ñi amee feebul xel ñu ngi leen di toppatoo yow sa jëmm bopp lan laa war a jël dugal la ci ñu amee feebul xel hôpitaux yi doyul fajkat yi doyul garab yi doyul demal Touba demal Kaolack demal peneen damal peneen demal Pikine ñëwal Tëngéej bi ma dëkk ñëwal Saint-Louis amul benn hôpital boo xam ne nii fu ñu fajee feebar xel ma nga fa moo ne ñun bañ jógee en deux dañu ne woon na nañu dugal mbirum feebaru xel mbirum fajum feebaru xel ci système de santé ci système de santé bi parce que boo gisee santé mentale lu jox mu néew doole mooy bokkul système de santé bi bokkul ci pyramide sanitaire bi te loolu OMS ba nga ko comprendre dafa joxe ndigal ne nañu fexe ba deux mille deux mille dix ñu fexe ba ñu ñu dugal mbirum fajum feebaru xel ci biir système de santé maanaam boo demee ci centre de santé yi nga dem ci hôpitaux régionaux yi nga dem sax ci poste de santé war nañ laa mën a taxaw bu dee am nga jafe-jafe xel waaye fii da ngay dem hôpital Matlaboul Fawzeyni da ngay dem hôpital bu Grand Yoff da ngay dem hôpital bu Pikine nga àndandoo ak ay malade kii am tànk bu dom kii am biir biy daw kii am feebaru xel ñu ñu jël ñëpp ñu wàññi kii am feebaru xel waaw loolu famille fan ni rek tey bi ñu nee woon Sénégalais yi boo leen balee seen kër ba mu set ngeen jël seen ay mbalit ngeen dugal ko seen biir armoire te du demee noonu te comme mbalit bi lañ organisé ba mbalit bi oto yi di ñëw di ko jël di ko yóbbu di ko tuuri ji waaw ñu amee feebu xel wax dëgg yàlla te ki amee feebu xel du du du mbalit ki amee feebu xel du moromu mbalit ki amee feebu xel nit la ñaata jëmm ñoo ne si mbedd mi taxawaalu ba ci buntu palais Macky Sall ay nit nekk fa ak am feebaru xel waaw ñaar fukki at ak ñaar Ansoumana wax na wax ba ba bëggatul wax léegi lenn moo ko defee léegi man Ansoumana Dione lenn ma dese mooy ma jël réew mi ci loxo ñi fi nekk tey parce que réew mi waa réew mi ñoo koy joxe waa réew mi ñoo koy joxe Ansoumana nañ ko ñëpp na ko ñëpp dégg deux mille vingt quatre dina nekk candidat bu soobee yàlla te dina gagné élection présidentielle bu ko defee ñu toppatoo jëmmi doomu aadama yi parce que Macky Sall Abdoulaye Wade Abdou Diouf Senghor li ñu fàtte woon mooy tabax doomu aadama bi mooy tabax euh, jikko koy mooy taxe ba nit ki du fen du sàcc du wor du sàcc alalu askan bi maanaam dafay nekk ab jaam parce nit da ngay sa bopp man Ansoumana Dione bu ñuy seet ku gën a suufee ci askan bi naa ngi nii taxaw man mi nga xam ne ñaar fukki ak ñaar bàyyi naa lépp ngir jëmmi doomu aadama man pétrole yitalu ma gaz yitalu ma zircon yi yitalu ma jamaa yitteel ma nit moom yitteel parce que nit moo gën a fort ci li yàlla bind nit mooy développer réew pétrole du développer réew euh, jamaa développer réew ñaata réew ñoo fi nekk am am ay ressources te tey jii ñoo gën a ndóol Sénégal loolu moo koy dal xool député yi nga xam ne moom lañ fal yóbbu leen assemblée nationale fa def ñëpp gis nañ ko lañ fa def ñoom seen jëm bopp xam ne ne lii di yëf nit société bu Sénégal moo am problème suñu société moo yàqu te tey lenn rek lañ soxla mooy ku ko defar ci koy defar nag day am politique boo xam ne nii dafay tabax citoyen bi président Macky Sall nee na année deux mille vingt trois année sociale mooy wane na moom ci boppam dafa am feebaru xel nañ ko wax ba mu leer sosuma dara Macky Sall bu ñu ko falee en deux mille douze ba deux mille vingt deux mu naan deux mille vingt trois mooy année sociale dafay dafa réeré ne politique vocation mooy sociale bu demee bay séddal ay xaalis te sénégalais boo jox fukki junni ak juróom-benn dox foog nga ko parce que fukki junni ak juróom-benn yooyu nijaayam papam doomam maamam xayitam dana ñëw taxaw ne ko jox ñu ci suñu wàll boobu bu boobaa xaalis boobu dafay mujj teg coono donc santé mentale nekk na loo xam te ni dañ ci war a taxaw pour ñaar fukki dërëm nit lay nit pour euh, foo demoon góor fat jabaram pour la moo tax ñun góor ñi tey du ñuy jéggal suñu ay soxna du ñuy yërëm suñu ay soxna loolu yëpp société boo ko gis mooy boobu la société yàqu na xool xale yi ci mbedd mi xool ñoom ne feebul xel ci mbedd mi xoolal looy laago yi man tey yii découragé wu ma damay sant yàlla bëgg gi ma bëgg sama réew bopp yi ñu am problème te il faut ñu jubbanti bopp yi il faut ñu defar xel yi kon bu journée boo xam ne bu ñëwee mbirum santé mentale nañ jàpp ne bëccëg yi ngeen ni boo xam ne amul bëccëg bu ko gën a président Macky Sall dafay màggal euh, euh, euh, journée de l'élevage président Macky wax na ci octobre rose mais loolu yëpp feebaru xel xel bu ñoŋ moo ko jiitu il faut ñu xam loolu santé bu du feebaru xel déedéet santé mentale mooy ñu fexe ba nit ki mu nitee kon santé bi rek ni ñu koy waxee sax mbir mi am teewlu xel mais problème mu journaliste yi la problème mu économiste yi la problème mu député yi la problème mu la problème de toute la société donc il faut que ñu xam loolu te xam ne réew mi kenn mënu ko defar fekk bopp yi baaxuñu te Sénégal tey ko xool xam ne bopp yëpp a yàqu. voilà Ansoumana Dione Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal voilà may fàttali yow yaay euh, njiitu assemblée association pour le suivi et l' assistance aux malades mentaux.